ko su ma ko kaasee maanaam première étape ba nga xamante ne dama ciy def ndox bu tàng ba pare su couscous bi pare avant ma koy def ci soow bi dama ciy def benn kuddu beurre sofia donc comme ni ma waxee couscous càkkiri ñaari étape lay nekk muy soow bi soow bi nga xamante ne meew sofia la ñu xóoyal démb ci guddi pour mën a am consistance bu mel ni boo yeewoo ci fajar bi tàmm nañ ci tey def ci crème fraîche parce que dañuy bëgg euh, dindi euh, maanaam dagg gu acidité bi nga xamante ni soow yi moom lay faral di am donc hmm. crème fraîche ak soow yi ñuy faral di utiliser seen mariage maanaam dina mën a dina mën a baax donc ñu jël suñu crème fraîche. day wàññi foroxaay bi. day wàññi foroxaay bi maanaam léeg-léeg ñu jàppaleeg suñu gars yi mbokk wala boo nee acidité mais boo ko nee soow mu forox xam na <laughs> maanaam bu nit ñi bañee ah. bañee di am soow yu forox donc euh, suñu crème fraîche am na yoo xamante ne dafa dang dafa mel ni soow mhm. am na yoo xam ne dafa liquide maanaam ah. day xaw a ndoxe ah. donc boo ngay jël euh, maanaam euh, jaxase ko ak sa soow bi pour mhm. dindi dindi forox forox bi ñuy faral di am ci ci soow tool mi. donc euh, ñu ñëw ci couscous bi. sànq def naa ci noix de muscade. donc couscous juste rappeler que kenn du ko kaas ak ndox bu sedd donc dañuy jël euh, ndox bu tàng. première étape bi parce que ñaari étape la ñuy defaree couscous donc nga jël sa ndox bu tàng def ko ci biir couscous bi. donc soo ko ci defee gis nga ndox bi dafay dépassé maanaam boo ko gisee nii da ngay foog ne dafay tooy mais après couscous bi dafay naan ndox bi maanaam yii bu ñu ko defee ci pays maghrébien yi dañ koy wowal donc bu ñu ko woowalee ci naaj bi yow soo koy toggee soo koy togg da nga ko war a réhydrater maanaam da nga ko war a tooyal mm-hmm. kenn du ko jël ci woowaay bi noonu rek consommer ko wala nga jël sa ndox bu sedd kaas ko ci mm-hmm. donc boo koy lekk da ngay sentir ni euh, bi nga def ci ndox bu tàng mm-hmm. ba niveau ndox bi dépassé couscous bi donc soo paree si je comprends bien da ngay bëgg mu sekkee ci ci leget bi bañ a sekkee ci biir yi bañ a sekkee boo defoo ci ndox bu tàng du ma nekk sax parce dëgër na dëgër boo xamante ni damay ragal boo ci tibbee benn kuddu <laughs> doo delluwaat. donc soo gisee ba nag Aziz euh, soo gisee soo gisee mi ngi mi ngi naan ndox bi. donc mu nekk couscous bi nga xamante ne mooy bu bu bu bu moyen bi maanaam am na bu dijj. am na bu moyen am na bu sew. donc euh, pour defar caakiri ku ne xam na ni caakiri sooy lekk danga war a daj ci li ngay lekk. donc hmm. dañuy jël euh, couscous moyen bi maanaam grain moyen moom la ñu def. donc def nañ ci tuuti tuuti noix de muscade dama ci def tuuti xorom mais du bëri parce que tam xorom bi du ñu fàtte ni daf ciy andi goût donc soo ñëwee nga xool ak sa fourchette boo détaché mi ngi naan ndox bi donc ma defar soow bi le temps que muy muy absorbe absorbe ndox bi parce que dafa war a wesang soo soo jeqee da war a gis ni dafa wesang mm-hmm. donc soow bi comme ni ma ko rappelé def naa ci crème fraîche ak euh, soowu sofi meewu sofia donc damay ñëw def ci sama sucre sucre vanille fleur d'orange essence vanille donc mën nga jël sa essence coco wala nga jël sa essence euh, muscade donc tam moom tam def ko ci sa dépend ci nit ñi goût yi ñuy bëgg comme ni ma koy rappelé am na ñoo xamante ne ay ñamu sow la ñuy faral di lekk ci bisu julli bi donc ñu njëkk defar sow bi maanaam yëngal sunu suukar ba mu seey bu ñu paree si couscous bi tey ko ba pare def ci sunu raisin def ci sunu beurre sofia bi nga xamante ne duñ ko fàtte donc mën koy soog ko mën a ñëw nag def ko ci biir sow bi donc mën naa ñëwaat nii ci couscous bi léegi grain yaa ngi détaché donc bii mooy nekk première étape bi après ma sotti ko ci inde bi maanaam inde bi ma yore nii ci biir euh, ci sama plan de travail maanaam tey ko parce que nii couscous bi ñoragul fi ne nii def nañ ci ndox bu tàng pour réhydrater ko mais desaat na tamit ñu toggaat ko maanaam ñu tayaat ko lu toll ci 10 minutes pour mën ko consommer nga xamante ni euh, grain de semoule yi dina mën a ñor parce que couscous bi semoule de blé dur lañ koy defaree mhm. donc xam naa le temps que ngay yeggali tonton Assane may tayaat sama couscous di ko def ci biir soow bi bàyyi ko may ko temps de repos mhm. jox la ngeen déguster pour nekk euh, goût bu nekk dem na place am na solo waaw mooy mooy cere cere bi faral di jógee ci dëkku naar maanaam Tunisie wala Maroc mooy euh, cere bu jaune bi maanaam couscous ok bu dee ah. cere bu wow parce que ah. xam nga ni ñuy defaree couscous noonu mën nañ ko defaree bu dugub mm-hmm. maanaam tay sa couscous wowal ko ci naaj bi ba mu wow mm-hmm. nga def ko ci ay sachet jaay ko bu fekkee cere yooyu nga jënd itam da ngay def même étape mm-hmm. def ci sa ndox bu tàng soo paree nga tay ko mais bii dañu taamu jël couscous pour xool sob tuuti di xool goût yi bañ a di def toujours la même chose mm-hmm, mm-hmm. moo tax tey ñu jël euh, couscous marocain donc euh, pour mën ko defaree suñu caakari pour xool ban goût la ñuy andi am na solo et j'imagine que dina yombal digestion bi de reesal gi waaw dina yombal digestion bu jaaree foofu yëpp dina rees gi dina yombal bu ñu nee bu ñu nee blé dur xam nga ni amul benn corps gras mm-hmm. à part sama beurre sofia bi ma ci waaje def ah. mu nekk ay recettes yoo xamante ne du la may lu dul ay protéines ak tuuti lipides donc euh, dina dina dina neesa yomba di dina yombal rees dina yombal rees parce que ñu gërëm la